sànku na ndax jaam li tax yàlla bind ko mooy mu xam ko su fekkee dund nga ba sa dund jeex te xam yàlla googu xeggoo ca yow sa dund bi mu ngi mel ne amul benn njariñ ndax li taxoon yàlla bind la dëgg-dëgg xeggoo fa jaam xam yàlla rek la ko yàlla di doyee loolu la loolu la alquran di wax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni binduma nit ak jinne lu mooy ñu jaamu jaamu nag mënul ànd ak bokkaale jaamu mënul ànd bokkaale kon balaa ngay jaamu foo nga wéetal yàlla yàlla nag mënoo ko wéetal te xamoo ko kon laay rek wane na ne jaamu googu liñ si ne moom mooy ñu xam ko ndax da xam ba pare door a mën a door a mën a jaamu koo xamut wéetaloo ko doo ko mën a jaamu li yàlla soxla si jaam bi mooy jaam bi xam ko jege ko di ko wéetal moo tax alquran wax ne maa uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين yàlla buur la buur yi ñett ñoo koy ñoo leen di wër benn mooy ñoo xam ne danañ la wutali wërsëg yokk sa koom-koom ñaareel ba mooy ñoo xam ne ñoo lay toggal di la lexal ñetteel ba mooy ñu nekk ak yow rek dégg nga xamuñ lenn soxla lu may di la wéttali ko yàlla nag dàqal na boppam ñaari kuréel ya mu ne soxlawut ku ko wutali wërsëg soxlawut ku ko leyal kon nga dégg ne kuréelu ñetteel bala soxla mooy ñu nekk ak moom rek ñooñu ñu koy wéetal mooy ñu ko xam ñooñu la yàlla la yàlla soxla dégg nga kon jaam li tax yàlla bind ko mooy mu xam ko su ko amut lu mu mën a am rek mu mel ne xamut dara moom la gars yi wax ne ku xam yàlla ñàkkoo dara waaye ku ñàkk yàlla xamoo dara pourtant mën nga am leneen waaye boo ko tëkkaleeg xam yàlla moom du dara dégg nga aljana sax boo ko tëkkalee xam yàlla kooku mu ngi mel ne xamul dara dafa ne xalaqtu bind naa dal xalq bi mbindeef li yaabuduuni ngir ñu jaamu ma yaani lum namm bi yaabuduuni ci ñu jaamu ma yaarifuuni mooy ñu xam ma yàlla nee na bind naa mbindeef yi pour ñu jaamu ma ibnu abbas ne lim namm ci jaamu ko mooy xam ko ndax kat doomu aadama balaa jaamu yàlla foo mu wéetal ko te mënoo wéetal koo xamut kon foo nga xam yàlla ba pare door koo mën a wéetal béyti bii nag du sukkandiku waaye pour wane ne ko xamul yàlla safara la jëm déedéet dundam sànku na lañ wax waaye waxuñ safara lañ jëm dégg nga yow mi am yàlla kay ki am aljana mu ngi mel ne xamul dara dafa perte rek loolu lay loolu lay tekki waaye tekkuwul ne safara la jëm ndax nit ñëw na wax yonent na ko su ma jaamu defee farata yi teguma si benn naafila ndax danaa dugg aljana mu ne ko waaw hmm? kon ku yem ci farata yi rek tegu ci naafila mën naa dugg aljana waaye nag am aljana ak am yàlla boo leen tëkkalee am aljana moom ak sànkute du dara pour yow borom milliard borom yi junne wala borom yi million amul dara ci moom ku ñàkk la waaye waaye mm, naa mu am mu nekk ku koomal ci ñeneen kon li tax yàlla bind jaami mooy ñu xam ko jaamu ko mënu nekk lu mooy ñu sellal ko sellal ko mënu nekk lu mooy nga wéetal ko loolu it mënul xam lu mooy nga xam ko kon xam yàlla mooy tax nga mën a sellal yàlla mooy tax nga mën a wéetal yàlla boo jaamu yàlla yàlla nangu ko boo xamul yàlla booy jaamu yàlla sa bakkan daf ci dugg te nitu yàlla yi dañuy fexe ba booy yàlla sa bakkan bi sax génn ci moo ñu ne al ixlaasu ixraaju siwa fi muamalatika lil xaq wa nafsuka siwan sellal mooy nga génne leneen lu dul yàlla ci jëflante gi ngay jëflanteeg yàlla te sa bakkan bi leneen la moom la imaam bu sayri ñu ne waraayaha وهي في الأعمال سائمة وإن هي هي استحلت المرعى فلا تصومي من بايل سبكن بي لوكو نيه مو ديف واي جيف جوم نيه لو رك اي كوكو بو رافت لو نجوم تي ديف تي نيكو اي كوكو بوم كو ديف موتاخ نيتال لنج بن تيميري بيتيلو سانغا في رانغ الاسلام جاب كو موتو جيب بام بكن بنوكو ياي جامبار ياي غور ياو nga yaa toj bitali yëpp ba mu des benn mu bàyyi fa benn boobu benn boobu bu ko tojoon ñu rey ko ndax lan ndax bakkan bi def cee dugg ba mu koy def defut ko ngir yàlla kon su ko defee na nga fexe ba génnee sa bakkan ci jëflante gi ngay jëflante gi yàlla te loolu nag fekk yaa ngi xam leneen mënoo génne sa bopp wa arifu siwa laa yuxruju siwa ku xam leneen mënul génn leneen ci jëflanteem digganteem ak boromam te foo nga xam yàlla pour door a mën a yegg ci maxaama boobu Ibnu Ataay Laay day wax ne bokk na ci màndargaay wakkiilu ci jëf nga mooy yàlla naagu maanaam dangay ñàkk yaakaar soo defee bakkaar loolu dafay wane yow da nga yaakaar ne sa jaamu yàlla yi moo tax yàlla di la jox li mu lay jox xolo ñoom dañ lay génnee ba génnee la ci yaakaar sa jëf luñ la yóbbu yaakaar yàlla rek duñ la génne ci ne yow yaa jaamu yàlla yàllaa tax ngay def déedéet dañ lay génne ba génne wàll la ci yëg gi nga yëg ne yaa def li ma la waxoon ci dars yu weesu rek ne la sa loxo bi bu jógee moom yëgul ne sax moo jug yow la yow la rek la ñu askanee jug gi ñoom noonu lañ mel yàlla jàpp nañ ne jëfi yàlla yuy feeñ ci ñoom rek la ñoom duñ ci dara duñ gis seen bopp ci dara foofu nag mënoo faa yegg fekk yaa ngi xam leneen moo tax kon li yàlla bëgg ci yow mooy nga xam ko doomu aadama ne bañ juddoo ci xam yàlla googu lañ judd loolu la yonentu wax ku judd yaa ngi judd ci lislaam kooku yonentu ne nekk mu ngi ci lislaam julliwut jox joxul asaka ajul màkk tuddul ñaari baat seede yi ci liñ xam ponk lislaam yi di fut ci dara waaye mu ngi ci mu ngi ci lislaam kon ci lu nekk ci xam yàlla ak wéetal ko loolu mooy lislaam ba nga demee ba fàtte nag sëriñ la teg ay jëf yu métti pour raxas sa xol ak sa ruuxu ak sa bakkan ba nga mën a delluwaat ci cosaan comme ku feebar rek ñu di la faj garab yi ñu lay jox mën naa la xarit waaye ñoo bëgg nga delluwaat ci wér gi nga nekkee woon naka noonu euh, loolu rek la ay farata yoo xam ne nii pour raxas sa xol ba nga delluwaat ci xam yàlla gi nga xam ne moom nga judduwaale woon gannaaw ko ñu indi tariqa muy ay naafila yoo xam ne dana laya ngi sa xol bañ man cee yekk ñama maarifatu billaahi ñama xam yàlla gannaaw nag buñ laya ngee sa xol ba pare su ko defee ñu def xam yàlla sa xol farata yi mooy raxas xol bi ndax xol bee fa tilim naafile yi moo koy layange su ko defee nag ñu yekk ci xam ndabal xam ñemal xam yàlla loolu moo tax farata yi jug moo tax tarixa yi jug moo tax lépp jug jéem a xam sa borom yow nag booy julli di julli di woor di joxe asaka di def lu ne te xam résultat xam yàlla googu feeñu ci yow la nga xam boo ko comparé ki xam yàlla la ma am yow amoo dara xalaqtu bin naasal xalqi mbindee fii li yaabuduni ngir ñu jaamu ma yaani lum namm bi yaabuduni ci ñu jaamu ma yaarifuni mooy ñu xam ma wéetal ma su ko defee di ma fuuglu xam nga jaamu yàlla mooy jox teggin feeñ waa yàlla yi rek yow daal da nga xool rek gis yàlla di feeñal lu ko neex lu mu feeñal rek nga xool ci sharia mooy ne lii laa laaj lii laa la laaj ci tëjëliyaat bi tëjëli bi maanaam lii ma feeñal lii laa la ci laaj nga def loolu buñ noddee rek. yàlla ak naan dem julli ji laal laaj nga dem julli ji ñu tooñ la yàlla ne nga baale laal laaj nga baale ñu sàcc yàlla ne la daggal loxo bi loolu lañ la laaj nga daggal daal noonu nga fi nekkee kooku mooy ki nga xam ne ni moom mu ngi jëf gaa waaye gisul leneen te it lu feeñ rek la yàlla laaj ci loolu lay def te du yëg na sax moom mooy def dafa yëg na yàlla rek moom mooy def def jëf ji loolu nag yombut dégg nga defee loolu mooy kii laa taalu bul gàttañ lu jox dëkk sa góor góorlu bi nay alfaani ci am xam yàlla isan kon tara da nga gis ajiba qurbi rahmaani kim taanu jege yàlla bul sàggan mukk ci jéem a am xam yàlla loo man ci góor góorlu pour am xam yàlla rek na ko def soo amee yitte boobu danga gis kim taanu jege yàlla mooy jege jege jege yàlla goo xam ne nii mënoo yegg ci moom yàlla ku yéeme la ndax noo ko gën a jege gën koo bëgg noo ko gën a bëggee gën koo wut te loo ko jege jege ak loo ko wut wut mënoo xegg ci moom mënoo xegg ci moom ndax balaa ngaa yegg ci yàlla rek mu ñàkk loola yàlla balaa nga yegg ci moom mu ñàkk loola moom la bàyyi di wax sakirtu bi xamrin in hamamtu bi shurbihi mandi naa si sàngara ba ko bëggee naan dafa bëgg naan sàngara si mandi maanaam sàngaraay xam yàlla boo ko boo yittoo naan ko rek ci ngay mandi Hmm? sàngaraay xam yàlla boo yittewoo naan ko ci ngay màndi yàlla balaa ngay yegg ci moom mu effacé la dégg moo tax waa ji waxoon ne min al ajaayibi wal ajaayibu jëmmatun qurbul xabibi maa ma ilayhi l wasulu bokk na ci kimtaan yi te kimtaan yi bari nañ jege soppi ba pare te mënu cee yegg yàlla noonu la mel mun na bàyyi di wax ne aarifoon yi li ñuy wut duñ ko am bu mukk dégg nga ndax yàlla du ndox moo xam ne da ngay ñëw naan ko wala muy jëmm joo xam ne mën ngaa yegg ci moom balaa ngay xegg ñàkk waaw waaye gëlëm googu ak ñàkk jot googu mooy jëmmi jot ko te ci ngëlmaane googu ci la dund yi tee nekk ñëpp nag loolu lañ xam ci yàlla dooyam ngëlmaane dooyam amul kenn ku mën a wax ne maa ngi nii yegg naa ci yàlla waaye dooyam ngëlmaane rek waaw balaa ngay xegg ñàkk di bëgg xegg di ñàkk saa yoo bëggee xegg doo doo fekk dara loolu fa la ñëpp yow nag boo góorgóorlu da nga yegg ci kimtaan googu da nga yegg ci kimtaan googu yasaru dana feeñ boo góor góorgóorlu pour jéem a xam yàlla da nga dem ba nga xam ne yasaru dana feeñ moom yàlla min cheyin jugee ci dara ala cheyin ci kaw dara la daa fa dara wa qablahu njëkk dara ak njëkk dara wa baadahu gannaaw ga sarmada dappetu dappetu na waxi bàyyi duñ mën a firi waaye ku nekk la ci yàlla jox rek loolu ngay loolu ngay mën a wax dégg nga soo yittoo xam yàlla danga nga dem ba gis kimtaanu bëgg a ci yàlla te mënoo ci yegg gisoo leneen lu dul moom te gisoo ko waaw yow xool moom la te yow mënoo koo gis mu gën laa jege bëgg gën laa jege sa bopp te mënoo faa لول هيمن قرب الحبيب وما اليه الوصول ياغي جيغي سوب بيت منو تييك لول ييتو خام يالا موي تاخ غا ديم بو موس لول موم لا يونت تي واخ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ادنا الجنا جليل لا ادنا كسوب جليل لا دي الجنا هيفر مؤمن فوف باي نينا عارف لا نسي كو خام يالا كو خام يالا دنج كو تيت سي ادنا منو ييغ سي يالا هيغ سي يالا غوغو منو كو ام في سي ادنا ndax am na kiiraay gu dox si digganteem ak loolu waaw dana ko jege lool ba mënul gis leneen lu dul moom te xeggut fa ndax balaa mu faa xegg ñàkk kon moom àddina kasoom la dégg nga dégg nga waaye nag soo góorgóorloo ci maqaam boobu di xuus danga jeex ci yàlla ba nga xamee ne da gis ne yàlla mooy feeñ jugee ci dara ci kaw dara fa dara. njëkk dara gannaaw ganam mu dappetoo luy loolu bàyyi ci jawaay rasaayil wala neneen alamul xalq min cheyin la mindeef bu jugee ci dara loolu maqaama wilaaya mindeef la bu jugee ci dara amaa nubuwa mu ne xalqun min laa la bu jugee ci dara min laa chea ci dara kon lan mooy xalqun min chey mooy wilaayatu mooy maqaama zaahir moom lay junne yazharu day feeñ من شيء جوجي تدا أنا مزهر دي فين دي فين صاحب الولاية تصاحب الولاية مو جمي الولاية مو مو عالم الخلق من شيء جوجي تي درات مو صاحب النبوة تقول مو عالم الأرواح مما القرآن جوني أولم يروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء kanaa xooluñ ci malakuutu asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar malakuutu samawaati wal arde kooku alamul xilaafa la junj ak wa maa xalaqallaahu min cheyin ak la yàlla bind mu jugee ci dara kooku mu ngi junj beneen alam mooy mooy alamul xalq kooku xalqun min cheyin amaa nubuwatu xalqun min laa chey foofu dara nekk fu moom fu jugee kon nag da nga dem ba xam ne yazharu day feeñ min cheyin jugee ci nubuwa ala ci kaw xilaafa للا شيء ف مقام ناسوت وقبله ان يك سخ شيء ديام تماي نووت يونتي بي مير ما فاج نفا واي نيك دارا ديام ناخ موم مو نجل بينو شيء موم دا فا فاج من قبل شيء جوغي سي لو خامي دا فا نجيك ليب افرن نووت فاج ولايه فاج جوغي سي شيء lépp ñëw daanu ci kaw shay waaye yooyu yëpp nag yaa ngi leen xamee la daa shay in fa beneen mbir mooy ci naasut ci maqaam bi ñu nekk wa baadu gannaaw lii lépp nag sarmada dana dappetoo xam nga loolu tombe naag li yàlla di wax ne alaa ilallaahi tasirul umuur wa ilallaahi turjaul umuur mbir yëpp ci yàlla lay mujj mbir yépp ci yàlla lay dellu tombe naag wa baadu sarmada mooy li bàyyi di junj bu demee ba xaqaay yëpp jeex laaxiru rek di def tëjëli ndaw wéetaay buur bu maye bi dana gis ay mayam doo am kum ko jox ñii ne fii ci àdduna la waaye àdduna wëlli yàlla yaa fa yàlla gis na ku may mayam gi ñu ne àlaaxira àlaaxira yonentoom fa nit ñu baax ñaa ngi yàlla gis na ku may mayam gi waaye bu demee ba la yàlla waxoon ne mooy aaxiru bu fi lépp jógee moom rek moo fi des dinañ demaat bañ delluwaat foofu du ma ci xuus bu baax a baax buñ delluwaatee ci foofu abat dana nekk seetub azal la doon cosaan rek lay ñëpp di dund lépp dana delluwaat ci asalam ci azalam ci cosaanam su ko defee la nga xam ne ni balaa benn tëjali di am balaa benn mbindeef di am la fa nekkoon ñëpp doon ko dund dégg nga mm, cosaan loolu gu seetlu googu loolu danañ fa delluwaat foofu na lay wax ne sarmada ba baax du gannaaw buñ delluwaat ca azal ba nga xamee ne leneen nekkaatut fi li alquran wax kama badaakum taawuduuna ñëw na ni ngeen commencé woon noonu ngeen delloo li alquran wax alaa ilallaahi umur ñëw na su boobaa loolu moom sarmada mooy dappito hmm? kon boo góorgóorloo ci jéem a xam yàlla maqaam yi da xam da gis ne dana feeñ si maqaamu zaahir min cheyin jugee si chey ala cheyin lépp dañuy ñëwaat ci benn chey ci xilaafa la daa cheyin waaye yaa ngi koy fekk fa chey ci naasoot waaye wa qablahu feeñ na njëkk chey nubuwatu دافا فاج من قبل شيء جوغي سي لو خامني نديك نا في شيء ناخ نوبوتو موي شيء بي كون لام فاج موم دو شيء دو دارا واي بعض نا غناو بولي ليب دلواتي تي ازرم سرملا مير مي فاي كوتيني دابتو نيماني لولو تفسير لا بو خامني ني يك يك لون لا يك سي بيت سي بي كيرن من نكو فيرن نينن كات nga waxi baye mom yalla rek xam deng soo góorgóorloo ci jéem a xam sa borom da nga yegg foofu waaye boo boo deful loolu nag da ngay jeex ci àdduna gis nga ni taalibe yi jeexee ci yàlla ba nga xamee ne moom mënul gis leneen lu mooy yàlla gis leneen lu yàlla sax daf koy jaaxal noonu lay nit di jeexee ci bëgg àdduna ba mënul gis leneen lu mooy àdduna yàlla moom dafa bu demee bu si bu yàggee sax yaakaar amut yàlla na yàlla musal ci maqaam boobu ak xaal boobu ibnu ataala daan na wax ne man raa al kawna walam yara laa qablahu aw maahu aw baadahu faqat enwasahu wujudul anwaar ku gis kaw ni bi te gisoo yàlla ànd ak moom gisoo yàlla njëkk ko gisoo yàlla gannaaw ga yow leer yi jafe nañ la waaw am na ñoo xam ne luñ gis moom yàlla lañ ciy gis bu ñu xool yàlla la ñuy gis waaye nag xam nañ ne dara du yàlla mhm. ñooñu moom yàlla ànd ak lépp hmm? am na ñoo xam ne ni hmm, dañuy gis ne yàlla la gis ba pare ñu gis ne lii jeexitu yàlla moomu feeñ waaye yàlla moomu am ñoo ne buñ gisee jaam bi dañuy gis ki ko defar ki ko defar waaye gis nga gis nga jaam bi sa xel delluwu ci yàlla ba nga ñëwee gisoo yàlla door gis ne moo bind jaam ba nga gisee jaam yi gisaaloo fa yàlla yow yow xamoo amoo leer wayen raxeb te nem xemam nga fi diyaadi imaan yi ci yokku gëm yàlla fa tuub na nga tuub na suuxan tuub gu sell ardi fan xaanan ci tofal ixsaanu rafetal nee bu fekkee danga bëgg sa gëm yàlla yokk na nga tuub tuub gu sell goo xam ne da ci yokk ixsaan mu di rafetal tuub nag ci amatu naas yi mooy génn ci bakkaar yi dem ci topp yàlla tuub ci ñu yàlla tànn mooy bàyyi giñ bàyyi luñ sopp def luñ sib tuub nag ci ñañ gën a tànn mooy ñoom bàyyi gi ñu bàyyi tuub bàyyi gi ñu bàyyi tuub mooy lan mooy ñoom yëguñ ni sax ñoom ñooy tuub ñoom dégg yëguñ ni sax ñoom ñooy tuub moom lay Cheikh Tidiane wax billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa maa balagtu maqaama mi xam ne amul benn buur mooy moom man jotuma maqaama tuub jotuma ko ndax la moom moom mooy tuub wax naa la ni nga yëngalee sa cër yi ñoom yëguñ ne ñoo def aarifu ni billaahi ñoom foofu lañ yëg ak yàlla ñoom xam nañ lépp yàlla koy def ñoom lu ñu def defuñ dara réew mo tax lu baax ñu ñu askane ko yalla kon na nga tuub tuub gu sel nga tek ci ihsan ihsan moy rafetal rafetal moy lan moy sa su nek del yeg yalla ihsan moy ngay jaamu yalla ba melni yang koy gis lool nak yeg yeg la boy gis yalla fo nga fatali len kon na nga rafetal ba sa su nek yow del yeg sa borom di tewlu nga bok ci ñi nga xamne ni alladheena ala salatihim daayimuuna ñi nga xam ne seen jokkoo yàlla jokkoo gu sax la dara mu leen xiir yàlla dara mënu leen mënu leen a fàttaloo yàlla ndax yàlla mi nekk lu nekk warul la ko mën a fàttaloo ñoom yàlla leen fàttaloo lépp waaye ñoom dara du leen fàttaloo yàlla loolu mooy ihsaan nga dem ba saa su nekk yow doo fàtte yàlla heggal foofu gannaaw woo tuubee dégg laa dégg nga dan na bul bañ لا تبغضن البني مسلم جلت لا تغضب النار الا لهتك الشرعه لمن قط الشريعه المهذب بسلبي بول بان كو خامن جوليت لا ناخ دو بان جوليت يينا بوك ميم بارت يالا نين ليغيال وور لين مانا بانانت واي بول مير لو موي حق الشريعه بو سلبي bu ñu wuteeg sharia daal mën ngaa mer waaye bul mer ngir sa bakkan del meral shariatu waaye bul meral sa bakkan laazim naga nga taqoo qiyaamu layli naafila guddi jaweex na nga xiifal maada biir akal akul xalaali lekk lu dagan a sirf lu ba tey udda limaale nañ ko del naafila guddi ndax naafila guddi mooy war waaye naaru góor yi góor yàlla yi di rawante dégg julli guddi leer la ñeexal nit ki del xiifal sa biir ndax bakkan ba ko yàlla bindee daf ko wax man maay kan mu ne ko yow a yow mën a man yàlla mbugal ko indiwaat ko maay yow yow mën a man mu mbugalaat mu jiga yàlla xiifal ko ba yàlla xiifal ne ko yow a kan mu ne ko yaay buur bu màgg bi maay sa bu torox bi moo tax bakkan xiif rek ci man dara boo ko bëggee yar na nga ko xiifal del lekk lu dagan ndax wax nañ ne wasam man chiita fa innaka ala diinihi waaye wa kun kul ma chiita fa mislahu tafalu na nga ànd ak ku neex mu wàll la jikkoom waaye nag lekkal lu la neex lu mel ni li ngay lekk rek ngay def booy lekk lu dagan di def lu baax booy lekk lu xaraam di def lu bon mhm. yonent sax nettali na xam ne mu ngi tukki cuxur pënd tàllal loxo yi naan yàlla yàlla may ma ci yonentu nee na la muy lekk dafa xaraam la muy sol dafa xaram lañ ko dundalee dafa xaram kooku na lañ ko nangulee ñaan kon lekk lu bon dafay tax sax boo ñaanee yàlla yàlla du la nangul dafay tax nga lottu ci jëf lu baax kon dee lekk lu dagan soo bëggee eh, dimbali ko jaamu yàlla wanaa seex na nga laay biiral ixwaana mbokk yi del laay biir mbokk ndax diine laayante biir la dee leen wax lu baax di leen tere lu bon was mut noppil ndax man samata najaa ku noppi mucc noppi xikma la waaye néew na ku koy def dégg nga ñu nit daal mën nañ koo eh, yëpp ngir kàddoom waaye nag kenn du la yëpp ndax ne da noppi dégg nga kon del noppi lu mooy nag wax jot da ngaa war a jàngale jàngale dëgg ji yow rek yaa a wax wax ko waaye daal bu wax warut noppi loolu la bëgg wax del bëri looy noppi bàyyi dana wax ne moom noppi gu yàgg xéem na ko ndax dafay tekki xam yàlla nee na xam yàlla du ay wax ju bëri waaye xaal bi rek moo koy wane na fexe sa xaal wane na yow ko xam yàlla kon del bëri looy noppi làmmeñ yàlla daf koo bañ ba wutal ko ay garde corps muy bañ ba pare wutal ko tuñ kaste ko dugal ko ci biir ngir wane ne nga koo génne naka lu ko jar jar sahib na nga ànd ak ahlal muru ati ñooñ bañ ruus mm-hmm. meneen ak bi ci jegeñaale yi bay wut xarit say mbokk xoolal ñi am bañ ruus nga ànd ak ñoom ñuy sa xarit maanaam ñi am bañ ruus mooy ñi nga xam ne jomb def yenn yi même bu dul ragal du dara dañ ko jom def rek na nga and ak ñu mel non ño xamne jom jomm ñoo def lu ñaaw yewit bu yàggee nga jom def lu ñaaw ndax wal mar unit, nit fii diine xarini mu ngi ci diine xaritam alxamim qarit bo bu mu sopp ba nit qaritam bi mu bëgg lam nek rek ci lay nek in bu baxé mm. fa salihun ku bax lay doon wa in bahim hmm. bu dee xaritam ba bàyyi ma la moom it bàyyi ma lay doon hmm. nit ku nekk ci diine xaritam bu baax boobu ci lay nekk maanaam nit ku nekk diine xaritam ba mu sopp ci lay nekk hmm. bu sa xarit baaxee nga baax bu fekkee sa xarit dafa bon bu mel ni bàyyi ma ndax yàlla am na ñu mu xas ne inhum ilaa kal anaami ñoom comme ay bàyyi ma nga bon ba mel ni bàyyi rek kon دلتا ناي خريط تذكر الميزاني دل فاتني كو براسي جيفيا خمالنا بيس دنا نيو لب لو مسا ديف ني بيسكو سوري لو باخ دنا ديس غن تي كاو براس با ني دوغال لال جنا سوري لو بون دا فا اف تولو بروم دوغ سفر يال ان شاء الله مسا يونت جانغال لا ني يوم القيامه نيت دنا نيو دو بيسس يالا دو تول ني مبغ يو ndax jëfam yëpp oyof te ci àddina fu mu génnaa nañu réseau pour bëgg koo gis nit ku màgg ku foor dana dee waaye peese wut ci yàlla lu toll ni mbagg yoo te ci àddina moom ñëpp daan réseau pour sax gis ko teg ku bët yàlla nañu yàlla may mucc nasru suuf fii tasaare kaamil ya del fàttaliku bis bi nga xam ne yàlla ubbi na magasin yu jëf ya ku nekk sa téere bañ bindoon say jëf tasaaroo ñëwal si la mën mënoo rëcc foo mu dikkal la su fekkee ku baax nga rek sa loxo ndeyjoor rek ngay tàllal daal di ko jël kontaan bég ne xamoo naa ne bis bii dana ma dikkal sama coono yëpp mujj na nekk noflaay waaye su fekkee ku bon la dangay gis ñu jël loxo càmmoy ba bëtt ko ci biir ba mu dem ca gannaaw ga ñu jox ko téere ba mu di ko liir di jooy naan mm, yaa laytani dégg nga mm, ma ma lam adri walam adri xisaabiya yaa laytaha kanat alqaadiya maa agni anni maaliya halaka anni sultaaniya mu ne waay waay waay réglé gii ñu ma réglé mooy réglé lan yellanti koon du ma sax dund yellanti koon ma nekk suuf sama alal jëriñut ma dara sama nguur gi ma xamoon yëpp sànku na su ko defee mu war a dugg safara muy rëccu del fàttaliku bis boobu nga xam ne loo jëf mu ngi ci kaamil boobu buy lu baax danañ la ko fay buy lu bon danañ la ko fay dee ko fàttaliku maa fil jaximi de fàttali ko la nekk ci jahannama mhm. min dawaamil asafi si sax ak njàqare yaa ngi fii di rey rek fàttalikul fàttalikul ne jëf yu bon yii jahannama la lay dugal te jahannama njàqare gu sax gu dul dañ moo fa nekk muñal ci jaamu yàlla ndax boo muñee ci àddina muñ googu dana la jëriñ nga dugg aljana boo muñu ci àddina da nga muñ lakk-lakk safara te du la jëriñ dara ñooñ safara buñ duggee safara danañ ne nañ muñ wala boog nañ jooy ndax waa aljana jooy yu bari moo leen taxoona dugg aljana ndax ñoom ci àdduna dañoo ragaloon yàlla ba saa su nekk ñu ngay jooy ndax xamuñ seen ëllëg ronkañ yooyu moo leen dugg aljana ndax ronkañ yu tuuru ragal yàlla bëri yooyu yàlla du ko lakk su ko defee ñoom ñu yooyu junne at jariñul leen dara ñu ne nañ muñ waa aljana muñ moo leen dugaloon aljana ba jaamu yàlla ñu muñ junne at jariñu leen dara yàlla ne isbiru aw laa tasbiru sawaun aleykum bu leen neexee ngeen muñ wala ngeen ñàkk muy mooyam ci yéen la ngeen defoon dañ leen ko fay ba mat sëkk foo xam ne njàqare gu sax gu amul benn noflaay moo fa nekk dee ko fàttaliku bis boo ko fàttee te yow looloo nekk ca kanam rek dafa mel ne amoo xel kon del fàttaliku njàqare jahannama àdduna lu métti métti dana am waxtu mu neexee dana am jamono jum neexee dana am ay bis neexee waaye safara moom bu méttee métti na dafay continuer dafay continuer kon muñal coonaay àddina ngir am bànneexu aljana boo muñul coonaay àddina nga am coonaay àddina am coonaay àllaaxira wa fil jinaani del fàttaliku ci aljana ya min xisaanil xuur yi sa jongama yu rafet yi nga xam ne ni balaa ngay ñëw di dugg aljana boobu danañ la sang ci benn dex lépp luy jàngoro sa yaram dal di dañ dootoo daggati doo nàcceti doo feebarati doo tilimati nga naan lépp luy jàngoro sa biir dal di dañ doo tojal doo tuur ndox doo ñandu doo tafli doo ñaq amoo benn salte nga nekk nit ku sell ku rafet koo xam ni ku la xool rek da ngay rafet rafet ba mel ni dogitu bidd wala weer waa xuru ay ni yaa ngi lay teeru nag dégg nga di kontaan di way ci dikkal gi nga leen dikkal yàlla jox la ay pale yoo xam ne yii wurus lañ ko tabaxee yii xaalis lañ ko tabaxee nga nekk nag ci teraangoo xam ne amut ak benn naqar àdduna loo mën a am ànd ak naqar waaye foofu moom boo xasee dugg aljana noflaay gu àndut ak benn naqar moom nga fay nekkee xuuru ay na yaa ngi nii lu mu gàtt gàtt da am lu ëpp fukki junne soxna te saa su nekk rek boo nekk ak benn soxna mu ngi mel ne yaa ngi nekk ak soxna yëpp yàlla di la indil xeeti meññeet yu neex yu rafet boo gis rek nga ne ah lii de moom mu la ma yàlla indiloon ci ci àddina nga ne pom la ndeke du pom. waaye dafa niroog pom boo ko mosee rek da nga xam ne moo dàq pom dex yi di la topp foo mën a jëm ci aljana dex yi mm, ndox la yi sàngara su neex soo xam ne du màndil yii lem la su neex yii ndox mu sell la su ko defee xéwal googu dee ko fàttaliku su boobaa xéwal àddina dana xeebu ci yow wax nañ ne àddina aljana yi jullit la di di di aljanaa xéeféer la di kasob julit maanaam lañ ca la moom mooy julit lu mu mën a am ci xéwal ci àddina boo ko tëkkalee xéwali àllaaxira dafa mel ni ci kaso la nekk waaye xéeféer lu mu mën a am ci àddina ci xéwal ci ci nattu boo ko tëkkalee mbugalam jahannama dafa mel ni fii xéwal la ci moom xéeféer bu nattoo nattoom rëy rëy rëy boo ko tëkkalee mbugal mañ ko xaaree safara jàppal ne fii mu nekk moom xéeféer bi aljana la ci moom waaye julit xéwalam lu mu rëy rëy rëy boo ko tëkkalee xewli aljana dégg nga nga dafay mel ni mosul am dara ci kaso la nekk aljana boo fay dugg benn duggin ñu cuub la ku la xool bu la xamoon ci àddina du la xàmmeeti ndax taar ba ndax rafet ga wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naazira yàlla nee na karam bi dafay nëttëx di xool seeni borom benn cuub buñ la laajee ndax mos ngaa am boo jëloon ki ëpp fitna ci àddina ñu dugal ko aljana yoon bu njëkk boo ko laajee ndax mos nga am naqar naan la déedéet waaye safara ki ëpp noflaay ci àdduna boo ko dugaloon safara benn cuubin nga laaj ko ndax mos nga am xéwal def naa la déet del fàttali ko aljana jooju maal jawaari ànd ak jéebéer yi nga xam ne ni ñooy ànd ak xóoru ay ni yooyu di leen liggéeyal lépp yaa ko moom maa xisaani duuri ànd ak kër yu rafet ya nga xam ne ni wurus yi wurus lañ ko defaree yi dégg nga yi ñu defaree ko xaalis nga nekk ci noflaay nek ci ngeur ngërmaane yàlla di xaritu yàlla leer yàlla yi di wàcc ci yow bànneex di wàcc ci yow ba anut ak nakar naqar fatlu ko foofu foofu moy dundu ba motax yoonent bi denga bam ba dem Medina daf daan wax ne allahuma la aisha illa aisha al axira faxfir lil ansaari wal muhajira yàlla dundu dal xamul lumay dundu dund alaxira ndax fi mom aduna gisut fi lu neex ndax bànneex ba dëgg-dëgg yàlla nga ko denc ci àllaaxira mm-hmm. yonentu xam na ne foofu la dund ba nekk mm-hmm. moo tax mu mu ngi wax gars yi ne njëkkalante leen ci liggéeyal lu baax mm-hmm. njëkkalante leen ci wun njéggal yàlla ndax dund dëgg mooy dund àllaaxira yellante ko woon bakkan yëpp xam loolu su ko defee del fàttaliku loolu nga ragal safara soosu waaye xemam aljana jooju ba dum na nga sax ala mukaffiraati zanbi ci way faari bakkaar del sax ci nga xam ne dafay faar say Bakkaar aakaduha ba ci gën a fare hmm. salaatu haadal xutbi mooy jullit bi la xutbu te mooy salaatul faatiha hmm. moom boo ko boo ci jàngee benn rek faat na say bakkaar yëpp hmm. bàyyi ba muy liim fidaaw yi nee na benn salaatul faatiha fidaaw la boo ko jàngee yéene ko yéene ci fidaaw sa bopp yàlla musal la safara benn salaatul faatiha dégg nga min bokk na ci musabaatu asri fukki mbir la yoo xam ne bu nekk danañ ko jàng juróom-ñaari yoon ci ñaari tarix bi la bokk dee ko taqoog suban ci suba wa masan ak ngoon hikaayatul azaani ak nettali noddu ay dan ba tey zatti saa ngay borom ak roy deel nettali noddu roy ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax moo ko santaane mhm. su ko defee loolu it ci li faar bàkkaar la bokk boo déggee nodd rek allahu akbar dégg nga yow wax la allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallaah nga wax ko bu yeggee ci a eh, an laa ilaaha illallaah di ko baamu ñaari yoon nag eh, dégg nga bu ko baamu dégg nga mu ne eh, hayya ala salaati hayya ala falaahi loolu bu koy wax waxal laa hawla wala quwwata illaa billaahil aliyyil aziim ko defee nag bu ne laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah nettali na du loolu téere fiqi danañ ko jàngale dafay far bakkaar an waaw azkaarin ak xeeti zikar atal yoo xam ne dikk nañ fil mazhabi ci yoon wi salaatuna ak suñu julli ala rafiil mansabi mansabi ci yonent bi nga xam ne mooy aji yëkkati ko daraja امنا قيتي زكريا يو خامن نيو نسي الطريقه بي ييب داني فا بكار جولي سي يونت بيغا خامن ني مو غنا كاو نيب درجه اك تي نوكو مانا جولي رك مو خام صلاه ابراهيم ابراهيم يلا ولا بنين جولي لا دي بري لو جولي سي يونت دافاي فار بكار صلاه تسبيحين اك صلاه تسبيح دافاي فار بكار دينغا جولي لا غن خام وتسبيحون اك سبال كزانكم دي واخ سبحان الله دافاي فار بكار تدبر القران ak setantal alquran bu ñuy jàng alquran nga di ko bàyyi xel sa xol di tooy ngay dund yàlla loolu dafay far bakkaar raay na nga sàmmanteeg almaxasa teggini jël sàmmanteeg teggini jàng alquran ak setantal alquran wala del sàmmanteeg dégg nga jikko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rakaataani ak ñaari rakk xufeetan ci nëbbu nga jël ñaari rakk yoo xam ne da nga koo julli te kenn xamut ko dafay far bakkaar yonent gis na bilaal ci aljana lu ko ci dugal. saa yu jàppoo rek dana julli ñaar rakka balaa njàppalee wow naqalul xutaa ak toxal jéego ilal masaajidi jëm ci jàkk ya yu kafiru dafay faaral xataa ñaawteef booy dox jëm ci jàkk jéego boo séq yàlla faaral na ca bakkaar kon dox dem ci jàkka dafay faar bakkaar kaza naka noonu isbaaxul wuddu yi suural njàpp jàpp njàpp lu tooy xepp ba njàpp li mat sëkk amul lenn lu manqué day tax yàlla far sa bakkaar waxut na nga xommat ama gumba gis gumba guy dem nga xommat ko xettali ko ba mu jëm fa mu yegg dafay faar bakkaar kazaana ko noonu xadaawa xaajatin faj aajo zid yokk nañ ci yokk nañ ko ci sa mbokkam julit am aajo jàq lool nga dimbale ko ba aajoom boobu faj sa bakkaar faaru na dégg nga yàlla dana la génne it si a yooyu waaddu mawjil baxri ak konte duusu géej yi fikratan ci xalaat ngay xalaat yàlla toll ni duusu géej dafay far bàkkaar wax nañ ne ku dem ci géej di wax di tud di kabaara yàlla <laughs> dégg nga lu toll ni ñeen fukki yoon mu koy compter si duusu géej yi bu duusu géej jógee mu kabaar di di def loolu ba muy ñeen fukki yoon yàlla far bàkkaaram yëpp kon amaana loolu la ci namu amaana it xalaat xalaat yu bëri lu toll ni duusi géej gi la ci namu dafay far bakkaar musaafatul ixwaane ak saafu wanteeg mbokk yi nuyu wanteek mbokk yi dafay far loolu nag ñu bëri dañ lu xeebu la waaye dem dajeeg mbokk yi na ngeen def yéen ci jàmm nangam nangam ku nekk sa xool sedd nga nuyu wanteek sa morom yéenante jàmm loolu dafay faar bakkaar faqus jëlal muqtani sandi aji rëbbu fexeel nga jël lii ma la wax jéem koo jëm koo jariñoo fag ko Hmm? mel ni ku doon rëbbi xam ko te mbir yi boo bëggee sa bakkaar di faaru taamiru shaxsin ak dundal ak jëmm ramadaana weeru koor saw mu ak xoor weeru koor boo xooree weeru koor mu faar sa bakkaar waaye boo dundalee eh, weeru koor bi ci jëf ci yu baax ak yàlla santaane bon mu faar sa mu faar sa bakkaar wa qaayimun fii ci weeru koor yu mu xaadanañ faar bakkaaram نافل وير كورين دافاي تخ سبكار فارو حجنا قاج دافاي فار بكار وعمره اك عمره دافاي فار بكار وسير صدقه اك سرخ غنبو دافاي فار بكار من حل مال واي موجيجي تي علال جدغان نياما باخنا دنگا تلك صدقه بوبلا لا سرخ دنگا سرخ بو نبو نغا جيري كو تي علال جدغان دافاي فار بكار من سرخ بوبو مودي سرخ سو باخا باخا باخا dégg nga taalimu sibiyatin ak jàngal ay xale dafay far bakkaar salaatu safi ak jullit mbooloo dafay far bakkaar fa kullu zaak yooyu yëpp zakaroo tudd nañ ko fi suxuf fi ci téere yi yii yëpp tudd nañ ko ci téere yi ne dafay far bakkaar dégg nga su ko defee yëpp benn bu nekk rek mën ngaa mën nga ci am hadis bu jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye danañ firiwaat ruuxul adab bi ci firi bi nga xam ne ni dégg nga mm, macha allah euh, sëriñ sëriñ bu mag bi cheikh abdoulaye suñu cheikh wuldu abdoulaye tidiane dégg nga mahamad wuldu abdoulaye tidiane naar boobu moo ko defar moom sharaxaat na ruul adab dañ ko dañ ko firiwaat ak sharaxam yi yëpp andi na ko andi na xadis yi su ko defee danañ ko indiwaat foofu moo tax jëru ñu koy guddal fii waa ka jàppal aafaatun ay gàkk-gàkk tuqas si yoo xam ne danañu waral xal ba xol ba mu la waxee yii faar sa bakkaar ba nga jege yàlla mu ngi lay wax nag gàkk-gàkk yi nga xam ne dafay wowal sa xol mu ne xubbu riasati bëgg njiit ashaddu moo gën a tat ayiban ci ayib ayib gi gën a bon mooy bëgg njiit bëgg njiit mooy ayib bi gën a bon dafay rey xol ndax soo bëggee njiit yow looy jiital rek ci ngay dox doo defari te yàlla tax doo waxat te yàlla tax na nga nekk ci kaw rek da nga añaan da nga soxor def lu ne ndax jiite rek yàlla incha allah musal masxun ak mboosóor gu bëri dafay rey xol mooy reetaan gu bari ak kaf gu bari dafay rey xol mboosóor bu tuutee dara nekkut ci waaye bu bëree rey xol waxiibatun ak jëw bu bëree rey xol xol bu dee nag mooy xol boo xam ne du fàttaliku yàlla du jàq ngir bàkkaar yi mu nekkee dégg nga dégg nga bu xol woowee bët wow borom loo mën a wax ci yàlla du jooy ndax xolam ci boppam moo wow loo mën a wax ci yàlla du dugg ci xol ba ndax xol bi dafa wow jëli su suuy ak xarit bu bon xarit bu bon dafay wow xol ndax nit ku nekk ci diine xaritam lay nekk kon booy ànd ak na nga ànd ku baax foxsun ak jëf ju ñaaw namimatun ak rambaaj wa nafsu suuyin ak bakkan bu bon borom bakkan boo xam ne ni daf bakkanam lu bon rek la koy digal lu bon rek lay def kooku it xolam dafay wow kaza nako noon xawa si bànneexu bakkan faraata tamit bul ko topp ndax boo ko toppee mu wowal sa xol bakkan lu wuuteeg li yàlla santaane rek lay digal saa yoo koy topp rek yaa ngi mooy yàlla moom dafa yàlla yàlla lu bu la yàlla ne julli mu ne mu ne nelawal bul julli soo toppee bakkan boobu bu yàggee sa xol wow wasat na nga dëddu fi dunaa ci àdduna bilaa tata mooy bul ko topp bul xiir ci àdduna nga xam ne sa ak sa dal yëpp xam àdduna goo xam ne nii bisee ñëw rek nga won ko fi gannaaw mm, dégg nga mm, daal di xam ne ndek jarutoon dara bul ci àdduna boobu boo xiiree ci àdduna sa xol bi dana mujj wow àddina daal yàlla daf ko wax liggéeyal ñi may liggéeyal ñi lay liggéeyal nga sonal leen loo ko am am bis dina ñëw nga bàyyi ko fi bu dee ay kër la woon ñu génnee la ca daldi la takk yeew la yóbbu la ba ci àll ba gas daal suul oto yi yëpp dafay tournewaat lépp nga bàyyi ko fi kon bu ci xiir ndax du dara xarit la buy xore xarit la buy wane gannaaw bul xiir ci wut ko wutal yàlla rek ndax loolu moo lay li lay jëriñ boo xëyee ci àddina àddina wala gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne boo bëggee yàlla bëgg la na nga dëddu àddina boo bëggee nit ñi bëgg la nag <coughs> bàyyi leen lañ yor kon bàyyi li nit ñi yor te bokk ak ñoom la nga yor te wan gannaaw àddina ndax yàlla mën laa bëgg bu dul loolu sa xol wow ku nekkal xil sa baytin di taqoog sa néeg deel taqoo sa néeg waxtasil berul kullal waraa mboole mbindeef yi laa tastatib bul neexlu ak xaawiran ay waxtaan wala mira du caagan werante yow del bëri looy wéet del bëri looy beru nit ñi ndax baram borom maqaam waxoon na wala tuksiran nal wasla fa maamu laqatun xeyru waasili bul bëri looy jokkoo ku ne ndax ku yokkat ñaareel mooy ku bëri lu muy jokkook booy jaxasoog nit ñi ñu fàttaloo la yàlla fàttaloo la dund yàlla ak yëg yàlla dugal la seen bëgg-bëgg yooyu te mooy xiir ci àdduna ak jëw ak jaxase ak bañante ak noonowante yooyu rek ngay gis ci ñoom ñu ëpp ci mbindeef yi yàlla wax na ne walaakinna aksara naasi lil haqqi kaarihuun ñu bëri dañoo bañ dëgg ñu bëri ci nit ñi ñii ne faasiquun lañ laa yuminuuna gëmuñ ay kàccoor lañ gëmuñ kon su ko defee del bëri looy berwu ndax beru googu mën naa tax sa xol aju ci yàlla nga miin wéet ak sa borom ak wéetali ko yàlla boobu toujours del nekk sa kër bul bëri looy génn ci bitti waaye del bëri looy beru lu may na nga nekk koo xam ne boo génnul làmbaay ñaa ñaaw ndax yaay jàngal li ñu yare ñu jubbanti wala ngay koo xam ne soxla nga sa sëriñ kooku moom mënoo koo beru bul neexlu ay waxtaan ak i werante ba mm, bañ a beru beru gi na la gënal ndax waxtaan yooyu ak werante yooyu dafay wowal sa xol rek waaye beru gi ak xalaat ci yàlla dafay tooyal sa xol waxut na nga gëmm tarfan bët an ayubi naa si ci ay nit ñi wala tax fulan la nga sàgganaanum si ñoom bi kulli basin ci lépp lu bon gëmmal sa bët bul xool ayibu nit ñi lépp lu bon na nga fexe ba bëgg a teg doomi aadama yi ndax yow si ayibu bopp dooy na la te bëggoo ko la teg lu bon kon bul ko teg keneen te sa daq na nga sarax al alal li wajillaahi ngir jëmm yàlla dégg nga zur na nga ziyaare xabru muslimin xabru julit bilaa taraahin ci lu du doyadi <laughs> ci lu du doyadi maanaam ci lu du jeex del ziyaare rek del sarax alal ngir yàlla ndax li nga gën a bëgg boo ko joxee joxe nga ko ci loo xam ne ni moo la gënal nit du jël lu mu bëgg di ko joxe eh, ci lu bëggut boo jëlee li nga bëgg muy alal joxe ko rek ngir yàlla dafa fekk yàlla la gënal alal jooju moom moo tax loolu mandargaay gëm yàlla la day ko def te sulul dara sax day yokk sa alal del ziyaare xabru jullit dana la fàttali ne kii de man ak moom ñoo fi nekkoon démb tey mu ngi nii tëdd teg xaw ma lu mu nekkee nga man a góor góorlu xam ne yow foofu rek mooy sa kër kër ga du tabax waaye bàmmeel yi rek ñooy kër ya nañ fexe dundal bàmmeel yi waaye rappal àdduna buñ wala bu dul loolu ñuy dundal ñaar yëpp waaye bis boo dundalee àdduna rappal bàmmeel xam nga ne doo nangoo mukk jógee ci àdduna bi nga dundal dem ci bàmmeel bi nga xam ne da nga koo rappal ñu bëri buñ bañee dee parce que dañoo dundal seen àdduna rappal seen àllaaxira moo tax ñu bëgg a jógee fuy dund dem fu rapp waaye boo dundaloon àllaaxira rappal àdduna xam nga ne yaa ngi ne jógee fu rapp dem fuy dund laa taxlifan bul gëñ illaa ida xayattaa lu mooy nga tënk ko alal machiati si coobare yàlla mata xalafta saa yoo gëñee bul gëñ mukk lu may wax nga inchaa allah saa yoo gëñee na nga wax inchaa allah dégg nga waaye bul gëñ ta waxoo inchaa allah wala taqulanna li cheyin inni failun dalika gadan illa an inchaa allah yàlla dafa ne bul wax ne suba danaa def dara lu may mu soob yàlla ndax lu neexul yàlla du am xadintaat jeex na nasihatul ixwaani laay biir mbokk yi al ixtisaarin ci gàttal misla ahlil aani kem ñoon jamono ji fi aani fi aamil isnaini ci atam ñaar wa arbain ak ñeen fukk baada salaasa asarata gannaaw fukk ak ñett ma inaa ci téeméer téere bii nga xam ne mooy laay biir mbokk yi jeex na dama koo gàttal nag ndax jamono ji bëgguñ lu gudd bu guddee mën nañ koo bañ a jàng waaye mu ngi jeex ci atam 1342 moom lay wax ne ñeen fukk ak ñaar gannaaw fukk ak ñett ci téeméer dégg nga xam nga fukki téeméer rek mooy junni mooy mille nga teg si ñett yi muy trois cent nga teg si quarante deux muy mille trois cent quarante deux sa maytu naa zannas ma bi la way bi ruuxil adab ci teg teggin li maa xawaa ngir lam làq min xikamin ci xam-xam yu am njëriñ waa adabin ak teggin montagere maa ngi ngant nangulu ngant maa ngi sàkku ngant inda zawil albaabi ci borom xel yi ومنشدا ما نجي سد قول فتل اندابي وخي ndawal penc ma te mooy borom laxdari ba mu taalifee sullam ci mantiq mantiq daf ne wali bani ihda wa ishrina sana maziratun maqbulatun mustaxsana wali bani ihda wa ishrina ñeel na doomi ñaar fukk ak benn sanatan ci at maziratun ngant maqbulatun buñ nangu mustaxsana buñ rafetlu ko am ñaar fukkaat ak benn borom sullam dafa waxoon ne bu taalifee téere boo ci gisee ayib war koo nangul ngant war koo rafetlu ndax xam ne ndaw la lu def lii dëgg-dëgg jàmbaar la moom it loolu rek lay wax ndax ba muy taalif téere bi wax nañ ne loolu la am ceeyaat fan faa yàlla nga jëriñ bisa nas mi ci bi la way jamial muminina mboolem way gëm yàlla yi yaa rabbana yow suñu borom bi jaahi xayril mursalina si darajaay ki gën ci mbindeef yi wajaanu yàlla nga ko def xaalisan mu aji sell li wajhi ka ñeel sa jëmm alkarima ju tedd ji alkarima ju tedd ji yaa rabbi yow sama borom yaa latiifu yow mi ñeewenti jaamam rahmaanu yow mi yërëm ñëpp rahim yow mi yërëm ñoras neex ci àllaaxira yàlla na téere bi nekk lu sell ngir sa jëm rek wala yaxuran ka bu la nax bi xafdi nay nazmi ci mokkal way wi kaw ni nekk gi ma nekk saxiiran di ndaw fii bilaadil ajami ci réewu ajam ya mu ne nekk gi ma nekk xale dëkk ci réewu ajam ya juddoo tey bañe seen gi nga xam ne fu gën a sori ci saalum dégg nga mu ne loolu bu la nax ba ba doo mokkal sama way wi loolu de dégg nga jamono wane na ko ndax nekk na koo xam ne tasaaroo na ci àdduna lépp kon xam nga ne woyam jar naa mukkal fallaaw yàlla yaxtasu dana jagleel bi fadlin ci ngëneel man yuridu ku ko neex mu ne ndax yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko ngëneel kon jéem a mokkal woy te jëriñoo ko ndax njëriñ ci wallaahu yàlla zul fadli mooy borom ngëneel al azim bi aji màgg wal murid mu aji namm lu ko neex yàlla mooy borom ngëneel lu màgg li te lu ko neexin moo koy def kon lim def ci jaam bi nangu rek moo si topp waaye kii xale la du def lu baax loolu amul fenn xale yàlla eh, mën na koo may lu mayun mag ña xat xaala wax na fi haasal majaari ci bile lef maanaam bile yoon al am jëdu ki gën a tedd xat yi mu taaxaa liggéeykatu yonent bi al maliki yu koy kaju ngiram malik ahmadu te mooy ahmad bamba ne falay sa nekkul yug si buddi fàggaloo sawaadul jismi ñuul ak yaram balaadatal fata duul ak ascam wasu alfahmi ak ñàkk dégg Cheikh Ahmadou Bamba nee na nit ki yaramam bu ñuul boobu du tax xel mi gàtt du tax mu gàtt dégg-dégg bon dégg-dégg déedéet nit mën naa ñuul fekk xel mu rëy la yore waaye dégg-dégg bu ñëw la yore kon nekk ñu ma nekk xale ñuul kukk bu mu la ndax yaa rabbi yow sama borom yaa rabbi yow sama borom bi jaayil haadi ci dara jaay yonent bi aji gindi fokk fa yàlla nga fekk annaas ñun charra kulla kulli aadi ayu képp kuy jàggati di tooñ mun na yàlla nga xewal naa naas ñun بكمال العرفان كما تقم يلا وكل مرغوب أغلب القمم بخير عدنان سي درجة يونت بجن سي دومي عدنان يلا نجي ما يقم يلا وهي لب بقر يلا نجي يكون دين فستور يلا نجي سترال عيوبنا سني أيب بسطرك سترى جميل بعد رفت وقهر يلا نجي عدونا سني نون بقهرك سنتر الجليل بعد مغ سنون يلا نجي نوت سنتر لوري لورو وهي يلا نجي سترال سأيب سني أيب ci sa sutura su rafet soosu walhamdu cant lillahi ñeel na yàlla alladi yàlla mi nga xam ne xat awlaa joxe na tey siira nazmi yombal sama woy yi foofu moom nee ma baax daal moo laa borom ba yàlla mi yombal woy yi maa ngi koy sant mooy borom bu baax su ma salaat topp xewal ma taslimi salaami ànd ak salmalëb jàmm ala nabi yàlla nekk si yonent bi al Mustafa wala boog ma taslimi salaami ànd ak salmalëb yàlla parce que yàlla turam yi salaam ci la bokk ala nabi yàlla nekk si yonent bi al Moustapha kañ tànn xëyri anaami ki gën ci mbindéef yi alay yàlla yàlla julli si moom sërmal ci moom wal aali ak ñoñam wa sax bi ak ay saxabaam al abraari ña baax ñi ma faaza feeg mu ngi texe bil arfaani ci xam yàlla kullu sabbaari bépp mu ñaakoon feeg muñ kat mu ngi xam yàlla rek yàlla yàlla julli ci yonent bi ak ñoñam mu jàngal na ne xam yàlla foo mu ànd ak muñ waaye ku muñut mënul xam yàlla إن أريد الإصلاح ما استطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal nañ ko ci alhamdulilahi rabbil alamina lu ci njub ci yàlla la lu ci dëng ci gàtt xam-xam ak aji wax ji la yàlla ñu ngi lay jéggalu mboolem jumte goo xam ne am na ci firim téere bi ñu doon firi muy ruuxu adab yàlla ñu ngi lay jéggalu yàkkamte gi ci am ñàkk teggin gi ci am ñàkk xorma gi ci am ak manqué gi ci am lépp yàlla nga ñu ko jéggal yàlla yàlla nga ko def muy téere boo xam ni firi mi dafa nekk firi mu sell ñeel sa jëmm ju tedd ji yàlla yàlla bu ci dugal ngistal yàlla bu ci dugal rëy yàlla bu ci dëggal dugal loola gërëm loowut yàlla bu ci dugal leneen lu dul yow yàlla nekk téere boo xam ne ni danañ dem ba tëdd suñu bàmmeel tiyaaba gi ñuy fekk ci foofu yàlla mën nga loolu yàlla nga ko def jëf ji yàlla bu mu dagg yàlla bu m yàlla nga ko boole suñu misaanu xasanaat yàlla nga ñu tàggat ubbil ñu xam-xam bunti xam-xam yi ak bunti dégg yi ba mboolem yeneen téere ci topp tam aju ci pay bi bàyyi firi ko ñu mën koo bàyyi bind ko ñu mën koo firi firi mu dëppoog sa ngërmande firi mu dëppoog njub di jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa yàlla mën nga doo yàlla nga ko def yàlla ci barke wu adab yàlla nga def naataange si réew mi yàlla nga def jàmm ci réew mi yàlla nga ñu may njub yàlla nga ñu may ragal yàlla yàlla nga ñu boole ci akaabiru aarifina yi ba ñi ëpp ñi gën a xam yàlla yàlla nga ñu ci boole yàlla yàlla nga ñu boole ci jaam yi nga xam ne jaam yi nga sopp lañ jaam yi nga gërëm yàlla yàlla nga ñu rey ci gëm yàlla yàlla nga ñu musal ci kéeféer yàlla nga ñu musal ci kàccoor yàlla nga ñu musal ci tooñ yàlla nga ñu musal ci bew yàlla nga ñu musal ci xol bu bon yàlla nga ñu musal ci réer yàlla nga ñu musal ci ayib yàlla nga ñu musal ci lépp loo gërëmul yow yàlla yàlla nga soril suñu digganteek mooy yàlla yàlla nga soril suñu digganteeg ñaawteef yi yàlla nga soril digganteeg natt yi comme ni nga soralee diggante penk xarf yàlla nga ñu jegaleel topp yàlla yi yàlla nga ñu jegaleel bëgg yàlla yàlla nga ñu jegaleel jaamu yàlla yàlla nga ñu jegaleel xewal yi comme ni nga jegalee sa diggante gi yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla man nga doon yàlla nga ñu ko defal in uridu lislam astantu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla yàlla bul fàtte suñuy waajur yàlla bul fàtte suñuy waajur lépp luñ la ñaan rek yàlla nga ko ful këm seen man defal leen ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa